établissement Mbaye et frères que spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax keur ngir mu mucc ayib te taru lu ci melni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox ciment pour toiture bo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu bax te wóor ngay wut établissement Mbaye et frères amna et itam gaamu rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique inox ngir seni ouvrage balcon profil d'aluminium avec vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi na étanchéité bi fa am solo la pour seni commande man ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15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 moo tax daanaka wax ji wax nga ko ndaw ji sànni ay kàddu yu néew rek ba tey bu ma noppee nga gën koo jàllale leer maanaam puus-puus yooyu nga xam ne ñi mënta dox dañ moom lañu yor moom laa bëgg koo xam ne maay si jëwriñ nga wut ci benn andi ko fii ak koo xam ne bëgg nga cee bokk rek sam gannaaw lu baax la ñu ñu dajale ko ñu ñu jox ci jox ko ñi nga xam ne mënu ñoo dox welo yi nag man gis naa ne bokkuñu man gis naa ci ay ay melo yu bari waaye nañ seet yi gën a baax nag gis naa ci yoo xam ne boo ko boo ci toogee say tànk daanaka du tege day lang mën naa mën naa mën naa jaar ci mën naa tegu sax ci suuf am na yoo xam ne itam boo ci toogee da am na fooy teg say tànk yooyu nag moo gën a baax moom yooyu moom ku ko mën a wut moo gën ku ko mënta wut beneen boobu mën a wut te bu bu bu baax rek bu bees rek nga wut ko euh, maa ngi ñaanit nag kenn ku dégg wax ji xam ne lu baax rek lañ ci yublu liggéeyal ci yàlla yonent ak sëñ Tuubaa ak sëñ Muntaxa mi nga xam ne lu baax rek ku ñor itteem yëpp mooy lu baax naka jekk nag mu ngi ci ci ittewoo lu baax waaye nag dafa raw léegi bi mu doonee bi bi dafa rawati nag léegi bi nga xamee nag mooy Sëñ Tuubaa toogaayam bii képp koo xam ne xalaat nga lu baax loo xam ne soo ko defee rek muy mbégteem war nga ko def te moytu lépp loo xam ne lu koy naqari lay doon loolu daal moom laa ne woon ma ma sànni ci sama ñaari baat boo noppee euh, sëñ Mortala Fall yëggale ko wala yooyu daal laa bëgg mu bari lool nag mu bari lool nag li tàmbalee ci benn ba ci fukk daal ku ko mën baax na ba lu ko ëpp sax dañ mm-hmm. koy dajale lépp bu bëggoon naa nag bu fii ak euh, safar lépp daje bis bu jëkk ci weeru safar ñu tàmbali ko joxe waaw amul nag xëj ak seen ak ci laa bokk ak waruma cee bokk ak mu am naa cee lu ma ci am lépp ñëpp ko moom bu fi dajee daal ku bëgg rek ñëw la te buñ ci yeggee itam kuy kuy ñëw booy jël sa sa sa bos danañ ci boole wàlle asweccit asweccit ah. waaw ah weccit bi baax na ci di danañ ci boole asweccit xaw ma xaw ma xaw weccit xaw ma dana bareem du bari waaye danañ ci boole daal asweccit eh, am na ñoo xam ne ñu mën nañoo ñëw eh, andi xaalis ne ma bi eh, njëgu weloo ngi nii njëgu njëgu puus puus baa ngi nii hmm. léegi nag man xaw ma njëgu puus puus ñaata la xaw ma fu ñu koy jaay hmm.